pour l'instant ñi ngi ci dem bon estimation yi ça tourne autour de ñeenti junni ak juróomi ndaw yoo xam ne fas yéene leen a tàggat euh, pour ñoom ñu jox leen liggéey boobu parce que ay emploi la ñuy créer dañ leen di tàggat ba pare affecté leen ci SEDEPS yi euh, ay parce que au niveau des SEDEPS aussi dañu prévoir ne de créer fa ay crèche ay crèche de proximité xam ne foofu la ñuy ñëw di dénkaane xale yi ñoom foofu la ñuy dañ leen préparer pour ñu ñëw justement euh, tee xale yooyu te xam nga tee xale yomb moo tax ba ci biir préparation bi quand même am na ay matières yu bari yoo xam ne dañ ko cee dugal mais formation bi déjà ñi nga xam ne ñoom la ñu war a former dañ leen a tànn parce que xam nga métier la boo xam ne du n'importe qui nga koy jox dañ leen a tànn te ci leen tànnee ba pare également tëgal tëral nañu ay programme de formation